ay Tijane donc nag week-end bi bëri woon na ay information bu baax a baax yow effectivement Myriam di la nuyu di nuyu suñu téléspectateurs yi alors dañuy commencer ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna moom nag euh, aujourd'hui am na 79 jours de prison fële ca camp pénal ñu ñu xamal ni que rek au delà de 6 mois de prison moom dañ koy daal di rajo ci li nga xamante ne moo di fonction publique moom euh, Guy Marius Sagna et que li nga xamante ne moo di salaire am dañ koy euh, coupé kii lee nag di Ousmane Wade délégué général de FRAPP France Dégage moo daal di def yooyu les déclarations di xamal ni que kii lee di état dañoo bëgg a ki nga xam ne moo di Guy Marius Sagna ci fonction publique bi Myriam. bon Lester jusque moom mi ngi dans de très bonnes conditions parce que xam nga la dernière fois bu mu mhm. génnee mi ngi doon dénoncer comme quoi ni ñu ko doon ko doon jàppee ci biir prison bi. Mhm. wax na sax ba wax ne dañ ko doon déshabiller di ko traité ñoo xamante ni. laisse mhm. tomber te bii am na fa soixante soixante dix neuf jours aujourd'hui mhm. on espère que di mu ngi fay am traitement bu baax. espérons bu ñu fa jógee ñu daal di dem ci ñoo lànk ñoom nag ñi nga xam ne que dinañ reprendre ak service euh, vendredi incha allah. Mhm. et que tey dem nañu déposé ci li nga xamante ne moo di seen euh, demande d' autorisation pour ñu amal li nga xam ne moo di manifestation bi. Mhm. et que ñi nga xamal itam ni que bii pas dañuy amal yeneen itinéraire Mouhamed. ça va pas comme les dernières fois. comme comme ni mu mu doon ni doon doxee. ayca nañ jàll ci beneen cas ne moo di Marième Faye Sall moom nag ginnaaw bi ñu euh, reyee ki nga xam ne moo di étudiant ba gaañu woon fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis doon wuyoo ci turu Fallou Sène mhm. moom dem na defar këru parent mi moom nag ñu amal ko fa cant ak ngërëm ginnaaw bi Idrissa Seck waxee woon en 2018 dina defar boobu le ba tey defar ko moom Marième Faye Sall def na ko te kenn yëgul defar na kër gi mhm. nu ñu ko yëgee nii ko dañ ko ba mu koy defar kenn yëg ko woon <laughs> avisé wul ni ko dafay dem def comme ni ko Idi defee te Idi def ko moom Mariam Sall da ko def ba par da ko médiatiser donc kon ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax mm-hmm. première dame mu ah. doon geste bu nice ah mu mm-hmm. doon geste dëgg la mm-hmm. moom du def di wax nag du nettali ndeysaan ñu nuyu waa Saint-Louis yëpp ñu dem ci ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 moom nag amal na interview ci li nga xam ne moo di ITV lutte euh, ñoom nag muy woo nga xam ne ñoo di Modou Lo euh, Eumeu Sène ak Boy ñaar 2 pour ñu jàppale ki nga xamante ne moo di Djibi Sarr nag muy préparateur mystique ci mbër bi ñuy wuyu mbër bi di wuyoo euh, Ama Baldé fële ca Pikine moom nag dafa amoon choc en 2016 boobu ba tey nag il est cloué au lit amul benn jàppandi boo xamante ne rek avancé na ci wàllu wérgu yaramam et que boobu ba léegi ay proche am maanaam ay xaritam ak ay famille ñu ngi koy jàppale mais ba tey tamit amul wérgu yaram bi wax ci moom ñoom nag ñuy ñaan ndimbal ci mbër yi nga xam ne ci mbër yu mel ni Modou ak yeneen localité ñu ñëw jàppale nga xam ne moo di Djibi Sarr Mohamed ayca donc ñu ngi koy ñu ngi koy jàppale ci ci ci ci ci geste bi mu def moom mm-hmm. il faut il faut dire aussi que ni nit bu nekkee ci benn enceinte nekk ci benn liggéey euh, defe naa ne animosité rek warul warul dox ci seen ci seen diggante mm-hmm. bu ñu demee ba wàllum santé taxaw moom war nañu mun a euh, boole xol yeeg xalaat yi jàppale leen donc mm-hmm. on on l'espère et puis ñu ngi ñaan njekk ñaan ndimbal ci ñëpp ci kaw jibisaak moom bu ko defee euh, mu mun a retrouver waat wér-gu-yaramam amiin yaa rabbi. ñu mhm. euh, jëkkale li nga xamante ne nag moo disparition bu fiiw Mame Mactar Gueye ci bu ONG Jamra moom nag doomam mi xamoon nañu ko dafa réeroon le 14 février passé ci euh, réerum Saint-Valentin. Mhm. ñu ñu xamal ni que moom feeñ na waaye kii lay di ex commissaire bu bu buy wuyoo ci turu. Boubacar Sadio moom nee na lii lay di police ñuy communiqué baaxul Myriam ndax enquête bi lépp lu mu génnee rek ñoom waroon nañ koo mën a denc seen biir mm-hmm. et que population bi waroon nañ koo bañ a yëg waruñu woon communiqué ni que kii lay di doomu Mame Mactar Gueye dañ koo fekk ci ab auberge ak copain am loolu waroon nañ koo denc mu nekk secret professionnel et que lii lay di police mm-hmm. war nañoo dénk seen ay communication ay professionnel Mouhamed. loolu la Mame Mactar Gueye Ah, en tout cas affaire baa ngi ci ci ci loxo yoon parce que gis naa ni tey ñu dañ koy yóbbu. ci effectivement mu ngi woon en audition. ci Dakar waaw pour xool lan la lan la ko dal donc fii ak suba incha allah ñu ngi xaar xool. lan la kii di wax résultat yi di joxe. effectivement mu doon lu doy waar loolu la. Hmm? dinañ ci ñëw ci kanam indi. yooyu da bul bul doy gendarme lay fekk ah, mais mais Jeanne man li bëggoon xam mooy le fekk ñu ne si auberge lañ ko fekk loolu c'est vrai wala benn supposition la rek. d'accord loolu loolu sénégalais yëpp jot nekk ci auberge lañ ko fekk ak ak copain am que famille aussi nee nañ ni que moom dafa amoon habitude di dem di defi sport léegi nag li ñu déclaré mooy ni que ci auberge lañ ko fekk loolu la ñëpp sénégalais yëpp jotandoo. d'accord. mu ngi ci loxo yoon en tout cas yoon dina ci indi yoon dina ci indi ay ay ay leeral yu yoo xamante ne sénégalais yi dinañ ko mën a dégg donc ñuy gisewaat ak yéen ci kanam tuuti rek ci actu people bu tàng jër Mouhamed ñu hmm. hmm. waxtaanee wàllum people waaw tàngoon na jër weekend bi weekend bi de hmm. ah yi ci defee ci bu mbaa di ko wax. ay lii. waaw waaw. woon nag quoi. ñii ko loola woon quoi. ñu ci def kenn du ko wax. ak ak Ibou Ndim mbaa yow yooyu yëpp duñ ko andi. xëy na yaa wax ngeen kay ñun dañuy wax. ragaloo ah, ah, lool. kon tey da ngay people sa bopp daal. nenu nag bi rek moo ma ci daj ma. Ah. nenu nenu nag bi. <laughs> nenu nag ban su defee lim koy ba ba ëpp ëpp ko. dañ eh. eh. dem ban dañ dem ban ànd ak nga xamante ni mooy maman xewal maman xewal ñu remercier Happy Family ñoom la ñuy àndal ci biir seen xewal. voilà Myriam donc.